mais ce qu'ils ont fait avec la réduction des denrées aussi naxee mbaay la parce que ay ñetti dërëm ñaar dërëm mën nañ jël le temps xëy na d'apporter vraiment loo xam ne dina soulager le le le le le le le le non côté boobu moom Modou Awa pour man c'est à féliciter et à encourager. ah oui ay 15 francs ci pain bi ay 10 francs ci ci yaa gis nga Sénégal c'est important Sénégal il faudrait que aussi ñi xam ne ne ñi fi ne dafa am ay situation yu ñu fekk ci réew mi mhm. waaye dafa am ay situation yu am ci àdduna bi du Sénégal rek moo jaxasoo ah tey àdduna si àdduna bi moo jaxasoo. man damaa bokkoon si ñi gëm na ne dërëm ñi mënuñu ko wàññi. Mhm. parce que fekkee ne danga nekk si yenn milieu yi di ci yëngatu di gis l'inflation di gis àdduna bi nu muy doxee di gis dëkk àdduna bi nu mu méttee nga dem ba gis un état bu wàññi pour man ñetti dërëm ak ñeenti dërëm ak juróom dërëm bari na mais état bu demee ba wàññi dërëm c'est à encourager et à féliciter. ils ont mis cinquante donc cinquante loolu mën a nekk. parce que Mor Awa effort yi ñu def nii ils ont des efforts énormes donc ñun tey en tant que sénégalais en tant que citoyen lan moo war a nekk suñu role mooy encourager leen ñi xoolaat naka la ñuy defaat pour gën a wàññi parce que wàññi bi pour man c'est de façon progressive. Mm-hmm. tey wàññ nañ ñetti dërëm suba ñi wàññiwaat ñaat dërëm gannaaw suba ñi wàññiwaat dërëm gannaawaat suba bu ñu koy def fii ak 5 ans wàññi bi dina mën a nekk. lu